sant sëriñ Touba di gërëm sunu waajur yu baax yi nga xam ne ñoo ñu meññ ci lislaam yar nu ci def nuy bi maa ngi fàttalikoo ko ñaanal sama waajur bu góor sëñ Ahmadou Guèye yàlla dolli ko ngërëm ak leer ak ñam bokkal ñëpp ci askanu mbaabu wépp liggéey bi di xaside yi ku sonnoon la ci bëggoon ma di ko def donte la njaboot gi am yépp ñoom ñépp daan foowee njàngum xasida waaye man la ci gënoon a sonal ci ma di ko def dinaa koy wax ñii ma àndal ni leen baytu laxum tidaahi baxda najaahi hinda sabaaxi wa fil masaayi naa di ma jàngulu mawaahibu ba ma agsi ma gàkk bi ma waxee laxumti daahi ngir ma wax baax de najaahi mu tëma ma gàgg sama làmmiñ damm mu di ma gàgganti di ma gàgganti di ma gàgganti ba mujjee mu ni ma bàyyil bayit woo ta jàll daal di may gàgganti bayit woo ca kanamam muy salaatu sitta ma jàll waaye yàlla def na saa bu may jàng xaside ba agsi ci laxumti day ba dana jaay sama xel ci moom rek leene njaboot gi mu am bari na tabarkàlla waaye man la ci tuddi sëñ Tuuba man la daan sonn ci ma sonn ci njàng mi bu yàggul am na sama mag ju ma wax ni ci fanam yu mujj wax na leen ni wax na ko ni na ngeen fonk xaadim mi bu baax waxewuma ko ngir doon gi ngeen doon am ay doomi baay ay na ngeen ko fonk ni ma jàppoon naa ni duma ko wax kenn ci àdduna waaye dama ko mën a tuuta denc ñoom ñooñi nag nga xam ne ñoom loo ñoom laa bokkal baay tàmbale ci Sëñ Ablaay ma ciy mag ba sëñ ilimaan ma ne Italie nga xam ne doomam ji ma tudde mi ngi fii ci xale yi nuyu na ma fii léegi maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant kilifa yi fi teewoon yépp lim nañ leen mboolem ñi nga xam ni seqoon nañ bis bii ku ci nekk ku ñëwul rekk ndawam ñëw la ak yéene jumat mat sëkk ngeen jéggal ma ma fàttaliku sëriñ Mbàkke Soxna ndax mënuma toog ci benn jataay di wax dara lu ma nit ñi dégloo te duma ko sant kenn la ci man sama sëriña sama baaya ku ma bëggoon la daana ma wax ni maa la jur yàggoone yi ci kër gi laa boole yemale taxaside yi doo nga taxoon masani ma xaadim ma ni ko mbàkke mu ne ma xaside yi ndëndum buur la ma ne waaw mu ne ma kenn du ko tëggal baadoo ni ma ku ko xamut jëru koo jàngal ak ku mën a doon ak ku ko mën a jur ni ma dégg li ma wax ma ne ko waaw daana ma ne bu leen ko jàngee mukk fuñ ko soxlawul ndénkaane lu ne dénk na ma ko ci xaside yi fonk gi ma tàmbalee ci diir bu yàgg jëkki feerooy sëñ ndongo caam baax na waaw dama xaw a sonn roy fi bàyyi Ablaay Ñang ba ci sama kilifa bu baax gi toog sëñ lay Seck ma bëgg ko lool moom sëñ bi toog daanaa ko roy ba ku ma daan dégg nga daan jàpp ni njàng moo jàng maanaam daanaa ko roy boo nuru ko nuru yi woo xam ni bu jàngee tey bu subaa lu mu jàng tey bu subaa ma jàng ko kon luñ ma wax ci bëgg bay roy rek xam naa ko dund naa ko dund naa bëgg di roy dund naa ko ci sëñ bi te kat li ci gën a yéeme mooy bëgg gi waxtu ne day gën a yees waaye du màgget maanaa tey jii laa ko gën a bëgg loolu moo moom mii nag naa wax ñaari baat ci moom naruma koon sax waaye pédagogie jàng pédagogie bi da ci liggéey lu am solo mooy mën a jàng dégg li ngay jàng mu neex te doo fo ba noppi yaru noonu lay jàng te ba ma ko xamee di ko roy yaakaar naa 1989 24 décembre 1989 laa jëkk a toog ci ginnaawam ca mbaarum daaru xudóos mooy jàng ma di ko aw ak tey ji am aw njàngeenam soppeekuwu fi kon ab bind la ci ñun ñiy jàng xasida yi yépp ñu xam ni li jàng di baax baax mën a jàng li muy baax baax maanaa yar sam jàng ku gën a baax te balaa nga yar sam jàng dangay yaru ba pare nit mën mën ngaa neex baat di jàng mu jéppi la parce que yaruwoo nit mën naa jàng di jàng nga soof ki nga soof ki lay déglu parce que li ngay def joxu ko àqam joxu ko gëddaam nit mën nay jàng ba pare sax nga soof ki lay déglu parce que li ngay def sonnoo ci te jàng énergie la dafa laaj ki koy def di ci sonn saa bu ci sonnee rek ki koy déglu mu neex ci moom waaye de mën na maa toog sol lu rafet jànge ni ma neexee mu neex ñi may ñi may déglu mënta ne il faut rek sa taar dañ moom taar bi foo nga teg ko ne mbubb mi froissé mbaa grand mbubb bi jëm ginnaaw wala kaaragor rocceeku wala mbaxana mi weng parce que li ngay def moo metti bu mettee ci yow rek neex ci ñu koy dégg te saa bu demee ba metti rek yow mi koy def di nga ko yëg di nga ko dégg itam parce que si sa cër yi ñoo koy mujj di ko dégg di dégg li ngay def léegi nag wax naa ko ba tàyyi jataay bii nag day jataay moo tax rek ma bëgg cee jaare ci sëñ bi mooy phénomène bi xew ci njàngum xasida nga xam ni ku ne yaa ngi koy defee nim la neexe ci sa baat bu neex mën na laa amal njariñ de fi nga toll waaye boo ko weesoo ba romb ko loo ca defoon ci lu wóor te def rek di ko réccu na ci ku ne bàyyi xel mu doon loo xam ni nag wax naa ko sànq ci fi ñu toogoon ni loo xam ne njëkkoo koo def te doo ko mujje nga bokk ci ñu koy def rek boo tolloo ci def ko nanga ko rafetal rafetal gi mooy xaside yi moom ki koy jàng war naa baax war naa sell war naa gëm li muy def waaye war naa yaru njàngum xasida ab yara koy gonge ab yar ab yar sëñ Sidi Muxtaar mi ñu fi doon wax léegi wax na ni ku yaruwul du yor dara waaye ku amuti teggin du teggi dara wax jooju xikma ju rëy la ku yoruwul ku yaruwul du yor dara te noonu danoo am gàkk-gàkk yu bari yu nu topp bi jëkk mooy wax nga ko léegi boo tàmbalee jàng xaside yi rek gàkk gàkk yi mooy nanga wute liggéey mooy dafa bëgg a seex mooy daa bëgg di am teraanga te du sonn nit ñi sama dama xaw a sonn sama tànk yi moo nit bëgg a seet su ko defee loolu day fàtte naa sax lu ma doon wax waaw kay yooyu nag war a ànd ak fulla ju sëkk ci li ngay def ba bu doon looy gas bu bënnee ku ne xam ni lala la teewoon a liggéey lii la man dégg naa ci bàyyil njàng mi boo ko bàyyiwul doo tekki dara dégg naa ko dégg naa ci boo bàyyiwul njàng mi nan dogoo bàyyi ma ma bàyyi la dégg naa ko dégg naa ci day mag mag magloog day seex seexlu dégg naa ko dégg naa ci du tekki dara dégg naa ji sax ma yónnee ci barab di ñaan soxna ñu ni fan lay jële téeméeri junni yu mu ko jox léegi naa ko billaahi les yi barki sëñ Tuubaa dégg na kon barkeelu naa ci sëñ bi la ko daloon dal na ma jamonoy sëñ bi néewaa kuñ ni ab murit nga te doo am gàkk gàkkal ci sëñ bi ba tey waaye loolu rek waroon naa tax ku ne góorgóorlu tey jii jànkatu xasida ñu bare nga koy def succès ñu bare nga ciy am aw tur ñu bare nga ciy am luxe kër gu rafet oto ak ya nga bëgg di làmb sa poos bii di ci daj loo mën a faje say soxla waaye xam nga bu doon bor booy leblanteel sëñ Tuubaa luy faygee mooy bañ a fo ci xasida yi kiy faj sa soxla te du ñëw comme ni ko gars yi waxee kiy joxe dépense bi te du añ si hmm? di faj sa soxla te du ñëw nga jiitu sa juróom ñetti moroom topp la mbaa fukk di la déglu boo duggee ci baas ña nga àndal xooluñu ña nga àndal yow lañuy xool nga ñëw toog bu ñu kuréelee yaay ne ci dégg bi yow rek lañuy xool boo jàngee ba noppi la daayire bay joxe yow lañ koy jox yaay sedd ña ngay àndal boo toogee fii ci kaw gaañu toog suuf xormaalee la ko boo tëddee guddi bay nelaw làmb sa bopp dana la wóor ni yëgoolu loo defal sëñ Tuubaa lu tax mu defal la lii te nag yëf yi dafa mel ni dañ ko jaawalee ab jàngkat ak ndaanaan jàngkat day moytu lu bari di daw lu bari di bàyyi yenn ja ki la ki la tee sol chemise ak pantalon nga xam ni moom araamal nga ko sa bopp dootoo ko sol jomm ko la la tere loolu moo la tere jataayu woy texee di doo dem fu ñuy fowee doo dem fu ñuy tëggee doo dem fu ñuy taxawaaloo doo yor cigarette doo naan sàngara boo gisoon koo bëgg sax dangay ngay nëbbutu ngir wormaalee ko sa bopp ngir xaside yi kooka yi dox sa digganteeg yu bari bari na te nag sëñ Blaat nee na woon dañ lay biral mbaa ñu mbaa ñu yàllu la dañuy biral rek mbaar yi nee naa woon aras kenn dëkku fa ku fa mën a dem lu yàgg-yàgg di nga ñibbi si tal loo fi def dinañ ko wax te nag liggéey bu mën a doon sóoraale ca netti lib ëllëg dafa baax ndax du yàgg dara léegi tey ñi fi doonoon mag ñi ñooy doon màgget ñi magi jàngkat yu jëkk ña ñi ci ëpp ñi ngi ci biir suuf ñenn ñaa ngi ci kaw la lii tëdd wàccaguñ wàccatuñ ko te defatuñ seen xel ni danañ ko wàcc ñenn ñi mënatuñ dematuñ fenn ba yenn saay nga séen magum jàngkat ci biir tànt ku mel ni bàyyi Moodu mu fi jóge léegi laajal ko àddiya parce que xam nga ni lam amoon amatu ko lam mënoon mënatu ko dooleem jeex na ndaw ñii fi dese nag tolloog génération bi di mëne di mëne di mëne ba njàngum xasida ki koy def xasida moom am na succès ba ba pare waaye ki koy def ñu mëne di mëne di mëne ba ki koy def moom am succès boo xam ne koo ko gis xam ni kii ci nit ñi am maanaa la bokk nga xam ni maanaam bu ma doon joxee exemple ci sëñ bi ñu bari xeemeem nañ jëmmam la sëñ Modou Moussa waxoon sëñ Cheikh ak sëñ Mbacke Madina na ngeen defar seen jëmm ba ku leen gis xeemeem leen waaye na ngeen defar seen jikko ba leen xam dootu leen bàyyi kon defar jëmm ji ba mu xeemoom ci la bokk waaye defar jikko ji nag moo gën a baax te nag yu nee ngi xew lu nee ngi am ñi ngi koy defee nu ne waaye nag kenn naxul kenn kenn deful kenn dara yi kenn defalul kenn dara ku ne làmbal sa bopp lu waay def sa bopp loolu moo léegi nag nañ defaat retour dellusiwaat ci sunu bopp nit ku ne nam def boppam rek lañ koy def am na noon baaxul gënul te amulug mujj te lii may wax billaahi barke sëñ Touba ak xasaay di sama bopp laa ci jëkki lii may wax nii maa ngi ciy yëg yedd gu may yedd sama bopp bu amut lii may def yàlla bu mu yegg loolu laa ci yëg waxuma ngir kenn man duma kuy gaaruwaale kenn jàppaluma kenn dara nu nit seet ba loola doy la nga di ko def bu la neexee rek neex na ma ku mu mën a doon ak noo ko mën a defee baax na danaa am way gu toll ni man doo ma yóbbaale ci dara te lii may waxtaane bu ma noppee nii waa baas bi bu leen neexee nañ dem ku sa yitte mat rek jéggal naa la waaye bu ma toogee fii bay xasida boo fi kenn nit desoon ma ma def li ma war a def loolu daal moo wér ci man ndax bi waxtaan wi tàmbalee ba léegi ay nit a ngi dugg ak a génn waaye bu noppi woon waxtaan wi ndax jataay bi yàgg na ku bëgg a yeewee ko rek jéggal naa la waaye li ma amoon pas-pasu def ko fii bu may noppi rek di ko def bu ci fi ñetti nit dinaa ko def moo wér kon ñii fi toog man ma dëkk fii ñetti at laa fi def xaw ma ñeent ma fi ñëwee ba tey ñetti nit laa fi xam bitig bi gardien bi ak waa ji taxaw man ci bunt bi ñetti nit laa fi xam barke sëñ Modou Moustapha ñetti nit laa fi xam borom bitig bi gardien bi ki taxaw ci taq ci bunt bi asan te damay dugg rek di fa jënd dara ba xam ko li ci des ñëpp may wax sëñ bi dangeen def rek oto bi gaari ma dugg nelaw wàcc duggaat ci oto bi dem maa ngi fi doog a ñoo fi doog a taxawal lii te lii kat matut weer ci làmmiñu Muhammadan Sow mi la génne nañ taxawal bisub soxna jaara fii ay murit a ngi fi ñuy yëg ni am murit a ngi fi biñ toppee waxtaan wi la daq tuuti ñu ni nañ daara ji nga xam ne yàgg nga ko ne sër nañ ko taxawal bisu soxna jaar bii mu doon lancement bi looloo waral nii mu war a mel ak ni mu war a toll toll nii waaye bu ñu ko waajoon atum yàlla foog naan téere bi sax duñu doy euh, wax ji bari na sax jéggal leen ma waaye lii moom lu lu taxoon ci sama xol la ndax jataay bi day jataay yub xasida ak ñooñ xasida ñu war fee waxtaane li ñuy yóbbuloo ak lu ñuy dolli ci liggéey bi ndax mankat kat naay dégg xuma ana xuma borom xumma maa ko wax damay dégg muy wax sëñ Xaadim Gueye ambassadeur bi ambassadeur nag munta weesu foo dem nekkal fa jànkat yépp ci kanamu ñii duñ ma bàyyi ma fen fu ñu tuddee jànkatub xasida ma ni tekk di déglu ba xam lu ñuy wax ci moom xuloo naa ci ba tàyyi waaw xumbaa nga ne ambassadeur bi la may wooye waaye fuñ ma séen may dem li waajo doon wax naan ko fooy seen fooy seen muy dem bu laaj waaye foo may seen may dem xamal ni fu ma ne jànkati xasida laa fa nekkal kon maa ngi maa ngi sant ñépp di gërëm ñëpp waaye lu mel nii su ma ko taxawalee yu bare bari ci yu baree bari ci coono yi mënuñoo tegu ak fi jamono toll maa ngi koy sante sëñ ma jóob sëñ Mohamed maa ngi lay yóbbante sëñ ma jóob monsieur le maire maa ngi koy sant bu baax tànt bi moo ko moo ko fi indi fekk na sëñ may sa géy waaw fekk na sëñ may sa géey bu sant yàlla boutique ma waxoon ko ni baas bi yow laa ko sase ak siège yi ak lépp sëñ xaadim a ngi fi ñëw fi teewal ko biñ ñëwee mu yónnee ma addiya ju bari moom sëñ Maysa maa ngi koy sant di ko gërëm di ko yóbbante sëñ Xaadim ak ñi ñu àndal waaye loolee ñu jëloon dara génnu ci lii ndax ci liggéey bi lañ ko defaat monsieur le maire bi ñu ko waxee ni dama bëgg ñëw ci moom ngir yëgal ko bis bi daf ni sëñ Xaadim ne leen ko ba mu déplacé wu may ñëw bi mu ñëwee lim ma njëkk wax mooy waxal noo ko bëggee ma am kersay wax ko dara ne ko boole naa la ak sëñ Xaadim seen mii sëñ xaadim ñëw ni ko nangam ak nangam lañ bëgg mu jël not daal di woo sëñ Mouhamed Diallo mee ni ko bis bi bul bàyyi dara luñ soxla rek def ko kon bis bi daf noo tiim te bi ñu xamanteeg léegi altine la tey jii la samedi matagul semaine mu jël bis bi amee def ci lim ci war a def lépp maa ngi koy sant bu baax di leen ko seereel yéen ñi ci jataay bi yépp di sant ni ma ko waxee léegi kilifa yi nga xam ni yépp séq naa ak ñoom ñu dëkk fii ci ndakaaru di fi liggéey ma cëral leen ci bis bi ñu ñëw fi ñëwin wii ñu fi ñëwee ku ci ne lim nañ la fii nga ñëw taxaw fii jël kàddu wax fi sa kàddu yu rafet yi nga fi wax li waral bis bi itam ku ci nekk jël engagement wu danaa la ci jàppale ba liggéey bi taxaw kon man sant rek laa mën a def ak gërëm ak ñaan fi waxtu wi toll moo tax bëgguma ci delluwaat di di leen toppaat di leen lim waaye nañu xam ni rek liggéey bi moom day doog a door sant ndëgg ca kanam la ay liggéey bi day doog a door euh, soxna Yacine Fall mi nga xam ni këram laa ne fii laa am appartement mosuma koo gis rakkam soxna Anta rek laay giseel muy nit ku baax bi mu xamee ni ab murite nga fi Daaru Xuddoos la dëkk la sol dàllam ñëw ba fi man ni ma man Daaru Xuddoos laa ndax sëñ Bàkki soxna loolu lañ ma bàyyale moo ma yóbbu kër loola rek la ma jàppe ak njabootam lu bari maa ko ciy defal lu ko neex man la koy wax lu ko naqari man la koy wax soxna ant maa ngi koy yóbbante ay cant ki ci soxna Yaasin mii nga xam ni fi laa nekk ci biir këram te man barab bu ma ne dañuy waxtaan ba suba waxuma fajar ba suba di coowaloo ba ca kaw woote nañ téléphone ba tàyyi di wax ni rek sunu coow li bari na ndax noonu guddi gi moo sunu bëccëg noonu lañ demee noonu yenn saa yi sax ab jànkat ñëw fa taxaw ci bunt bi yëkkati ba xolam sedd te xam nga fii dakaar la daa am melokaan waaye loolu yëpp ñu xajoo ko kon maa ngi sant soxna Yaasin bu baax ñu ko jaarale ci soxna Anta sant sama waajur we soxna Yam jóob mais soxna faat Fatma bokk ak sama yaay ndey ak baay moo fi ñëw ci sama ñëwinu yaay ànd ak waa këram gépp sama doom yaa nga ne sama rakk yaa nga ne kii moo ma gën a bëgg ci sama yaay kii moo ma gën a bëgg sama yaay jërëjëf Diop amiin Diop jërëjëf Diop kii moo ma gën a bëgg sama yaay waaw noonu la mel ci man keroog ba may dem màkk yaa ma gunge këram laa waaje waaw waaw leen di sant soxna yi yéen ñëpp ku ci nekk waaw waaw hmm. Hmm. waaw waaw bu yi weesoo ñu ñëw fa ba ma gisee ñoom soxna yi maa ngi leen di sant yéen ñëpp ku ci ne gis naa la xam naa taxawaay bi nga ci am di beral cant nag di sant nag mbooleem ñu doon togge kër soxna mati ñang gi ñoom ñëpp soxna ndey mooy fi ñu doon togge soxna bintu géey ak soxna daba suma rakk yooyu ñoo jiite woon togg yi ànd kook daayire bii nga xam ni mooy daayire soppe yi ñu taxaw ci taxawaay boo xam ni faw xana sama njort mboolem jàngkat yi sëñ Ibrahima kundul démb lu luñ fiy naan ci boisson moo sëñ daam cuun mi ñoo ko fi indi ak ndox ba noppi daloo sëñ Mamour Gueye ñii jóge Touba ak si ñoom daam ñee daloo leen seeni teraanga ñoo ko yoroon nee def nañ lu ne euh, sant leen gërëm leen santaale sama waa ji sëñ Daawuda mii sëñ Daawuda Juuf mii maa ngi koy sant bu baax waxtu wi daaw gannaaw korite gi tëddoon naa fi tawat nit ñëpp di ma seet xaadim boobu wax na ko léegi mooy toog ba mu yàgg rek mu yónnee xaalis bu bëree bëri bu ma koy woo téléphone sax bu ma tàmbalee sant mu coupé te gis nga teraanga ku koy xeeb dañ laa toroxalul bis buñ la toraxalee nga xam nan la teraanga toll te gis nga alal dafa sax ci xol ki la koy jox xamoo ni mu def ba am ko bariwaana koy jox nit jéppi ko ndax nam ko ko laaje bariwaana koy laaj nit yow mi koy laaj jéppi ko ngir nim la koy joxe sëñ Mouhamed Mbacke daf daan wax ni nit laaj la fukki junni ngir soxlaam nga jox ko fukki junni nee na dimbali ko dangaa faj soxla sa rek nee boo koy dimbali bu laajee fukki junni boo yoree ñeent fukk danga ko koy jox mu fajee fukki junni yee dimbali koo fanweer ya nee it nit bu la waxee soxla nga ne ko bu la laajee xaalis nga ni ko loo koy doyee mutoo koo laaj mutoo laaj li ñu lay laaj neen da ngay defal nit it lu baax ba noppi tuyaaba dem taxaw fee moom tuyaaba ni tey jii dooma jariñoo man la tuyaaba tey dooma jariñoo nee na dugg ci sa xel mi jax-jaxe ko ba kii li nga ko defaloon day wax ni xoolal kii li ma ko defal lépp ak tey jii li ma faye nee na tuyaabaay liggéey loolu nee na bis bu ñu ko jàmbatee rek la la wan ginnaaw sànni ay loxoom xam ne dootoo ko jariñu li ma la ci wax nag da ci am firnde ab naar da ko sëñ bi dafa ma si ñëw nii sëñ bi dama bëgg nga jëndal ma oto sëñ bi jëndal ko ab Toyota Camry ñu bari xam nañ ko jox ko ko naar bi dawalaat oto bi ba ñëw ba ci sëñ bi delloo ko caabi ci déglu leen yéen ñi eh. ni ko bëgguma oto bii Mercedes laa bëgg sëñ bi jël caabi ji téye yóbbu naar bi ñu dalal ko mag ñi tàmbalee xultu ñu ko sëñ bi naar bii dafa reew kii nga jëndal ko oto bi ñu dawalee oto bi ba Mauritanie jox ko mu dellu siwaat oto bi jox la ko naan la bëgguma oto bi kii nañ ko toroxal waay sëñ bi ne nii loxo bi rek dañu cal mu ni tuyaabaa ñëw bëgg maa yàqal de waaye naar bii li bëgg danaa ko defal ci suba si la yónnee ndakaaru gi ñuy seetal ko Mercedes bu mel ni ba mu bëgg sëñ bi jox ko mu sant sëñ bi jël oto bi jox keneen kon mën a joxe baax na waaye maniinu joxe baax na lool hmm, waaw fa rubbama ibadatun kathira xat afsadatha laxsatun xaqira bara na ku jëf ba nu jal ko mu doonub jal lépp di lu baax war kon nag li ma doon wax ci daawude mii rek laa doon wax ci nim may joxe ak bu ma koy sant nam may def mooy du bëgg ma wax kon maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sant nag Cheikh Mouhamadul Mountakha waaw maa ngi koy sant sax Mamadul mun maa ngi koy sant bi may socci moom sama baay moo fa yóbbu baay ma Maguèye ma kii bokk baay sëñ Modou Guèye mii mu jàpp sama loxo ba Cheikh Mamadul taqaar ñu xaadim yi sama dooma ni ma dama taxaw ne jàng sëñ sëñ bi dégg la ma taxaw di jàng sëñ bi ni tekk ràbbale loxo yi di ma déglu di ma déglu ba nopp sëñ bi yéemu ci njàng mi lool ni ko li ma koy xam-xam xaw ma ni woon sa dooma mu ne ko sama doom maa ko jur loolu bàyyi Cheikh ma Gueye moo ma ko may ci Cheikh mu Mountakha moo tax ma am ko maag sëñ bi ba tey jii fan yi ci ginnaaw rek diis naa ko yitte joo xam ne ni mu ko ñoree leer na Cheikh Kame bis bu yàlla taxaw bis mooy nañ ci taxaw nañ taxaw ci tëji ndax moom xasi ci xasida yi la ne nañ ci taxaw nañ ci taxaw loolu mënta ñàkk nañ ci taxaw waaw nun waa ma fàttikul bisir bu njaareem ñoo am lu njaareem di ko def ñu ànd ñëw ci sëriñ Fallu Mbàkke moom sëriñ Basiiru mi nekk njaareem ni nan jële ci ci moom ndigal moom mi nekk jaara bu joxee ndigal doy na ñu dem ci sëñ Fallou mun a déet man dunu maa yilif sëñ Muntaxa ngi tiib nu xëy dem tiib fekk fa sëñ Muntaxa booba sëñ si Sidi Muxtaar fi ne bi nu waxee ba noppi man mii nag sàmparam dibli na ma ba taw féex ci man lan wax loo maa wax ak moom mu tontu daal ni dégg naa ci seen kàddu ne li ngeen wax dëgg la ci yéen di ngeen ko amee ni ngeen ko bëggee waaye dama leen di jàngal yoonu murit toppee la sëñ Sidi Moxtaar bàyyi na mag lépp njaareem waaye dem leen ca moom daal di ko ni xaadim mun naa mu ne ko nuyul sëñ Isaaqa mi daal di ko ni sama xarit daal di daal di sama xarit de kii sama rakk nga nuyu ak sëñ Isaaqa mu daal di mu daal xam daal di sax de na mën a xasida yi lool ci yow dama bëgg bëgg ndànk boo ma nee barkeelu waaye ndànk sax bu ci sonn sax bu ci sonn sax bu ci sonn riim ko ndànk rek waaw nun ñëpp kenn waxatul. nga toog fee di jàng kenn nooyu mun a teg nga pare mun a ah mu gote mbéeg moo ko daan yow dangaa am xaas ci xasida yi te ki ko wax mooy sëñ Tuba walaay loola ca tiib ngi fekkee bu soxna jaara ba bi nu demee bi mu nu yobalee ci sëñ Sidi Muxtaar dani lu ngeen fa jële ngeen ñëw ci man ñu jóge ci moom ba mu mat weerati nangam poroxaan jot nu ñëw sa kër yow yaa tax ñu gis ko bu du woon ak yow sax ñu raa ma fataxul bi si man nan ko bañ a gis ba duñ ko gisee foofa nu jàng ba noppi sa kër nga ne na leen dem dama daa def su ma jàngee ba noppi laajal maam jaare yi àddiyee ngir jàppalee leen ko yow lii nga sos ni yàgg nga ko dégg nga jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf waaw xaaral xam may leen ko ba màggale rek may leen ko ba màggale rek jërëjëf waaw baax na. baax na baax na baax yaa ngi taxañ de maam Cheikh <laughs> waaw. boo demee santal ma ko dégg ba noppi xam nga yow li nga def baytu suñ tubaa nga wax yow li nga wax mën naa cee conférence réew ba déwét sa discours bi moom la àdduna soxla jàngkat yi dañu war a am metre boo xam ne fi la ñuy jëlee mu doon moo doon expert bu leen di jàngal yow la dogalub yàlla la ci yow keroog bi ñu ñëwee ci sëñ Muntaxa déglu leen rek màggale waaw moo yi ndax danoo toll kii dafa toll ci war a jàngale dama leen di wax kii xam nga lu mu doon fi ne loolu Cheikh Abdoulaye doon wax ni képp ku naa dama ni aw ñooñ déglu yonent nga ci ñoom jàngkat yi kii mooy seen yonent kii la leen yàlla yónnee ku ko ciy déglu mooy gën a dox ku xeeb ba xam ji di nga jàng ba son doo doon dara xam nga luy preuve bi jàngkat yi ko jiitu woon ñi ci roy ca siiw nu bari na am na jàngkat yoo xam ne ku leen roy doo siiw seen ginnaaw a tàng ñaar ñii xew kenn ku ne mën a jàng ñoom doo nga mën a ànd ñeneen ànduñu bu njëkk jàngkat bu seetee mën a jàng lu ko dal mën a mooma bëgg naa ngeen yeewu bu baax di déglu kii keroog sëñ Muntaxa bi nu ñëwee ba toog bi nu dajalee addee jooju mu dajale andi ko di ko ko jox muy ay ton lu baree bari la bu ñëwee di ko ko jox mu ne ah si xaar mu naa ah, mën a ko yow de salaahu de yow da am ci soxla si xaas moo tax moo lay liggéeyloo moom mii mu ni ko ah moom de sama soppe yi ñi nga xam ne maa sopp ngir xaside yi ak sëñ Tuubaa képp ñoo koy dajale di ma ko jox dama ko daje andi ko mu ne ko waaw ñooñ de juumu nu de maa ngi déglu de mu ko damaa bëggoon nu ëttal aw tur mu ne mu ne waaw ma fàttixul bisi rek waaw ma fàttixul bisi rek booba loola boole ku bëgg a bëgg ànd ak yow ñu daal di dandu nga pare ñun waa ma fàttixul bisi njaarim ñëw bi ñu ñëwee ni ko ah kat da nga noo yebaloon ca seen Sidi Muxtaar doon la doon wax ni dem nañ ca ba ñëw nee na ñu li nga wax doon doon wuti tur mu ne waaw xaadim ah xaadim bu naa bu naa ma fàttul bisir rek kon sunu bisir jéeyu bi yaa ko waral ñaari bisir yi la ci benn minute ma fàttul bisir daayira soppe yi ak ma fàttul bisir njaareem benn minute la ko tegle euh, Cheikh Mouhamadoul Mountakha sant naa ko bu baax gërëm naa ko bu baax waaw moo la waxoon ne ñun ñépp ñu toog ànd ak yow mooy la li nga yor ku baax koo seen muy dox di dem li nga yor la bëgg moo xam mën na ko am moo xam mënu ko am waaye li nga yor la bëgg waaw ah, loolu de wallaay waaw ah, Cheikh Mouhamadoul Mountakha sant naa ko di leen ko seereel di ko gërëm di leen ko seereel di ko ñaanal di sàkku ngeen ñaanal ko jenn jëmm la ci man taxaw na ma ci zaahir ak ci baati su ma mënee di def dara poroxaan kenn di ko gis di ko naw Cheikh Mouhamadul Muntaqa sant naa ko bu baax daaw bi mbas mi tàmbalee moo ma woowal boppam yónnee ma ceeb bu bari lu toll ci juróom-ñaari ton cheikh kam moo ko jëli woon ak cheikh aadama ma fay camion bi juróom benn junni mu ñëw ca ëtt ba mu ni ma séddaleel ma ko jànkat yi waaye wax leen ni fàttewuma leen wax leen ni maa ngi ànd ak ñoom daal di may wax ni am na fi sax magum jànkat mu fi ñëw di wax ni mooy bàyyi jànkat yi waaye man xawuma kooko yow laa xam waaye nag ndegam ci mag bàyyi jànkat yi la rek nanga ko ci bàyyi xel walla ma wax kon sëriñ bi mënuma koo fay yëg gi yëg gi nga xam ne yëg na ni mu ngi ànd ak jàngkat yi tànnu ci kenn ku dul man mu tuuti mii di ma def loo loolu lu ni rëy ci man amut ci dara kon sant naa ko bu baax di leen ko seereel di gërëm ñëpp gërëm nag ñii nga xam ne ñoom laa àndaloon liggéey bi tàmbalee ci sëñ xaadim seen mii ci bopp bi nga xam ne amatul woon guddeeg bëccëg fii lay fanaan di yendu liggéey bi coowoo nañ ci xuloo nañ ci waaye bëgg mu jag rekk a taxoon ñoom ñi ñëpp sëñ faal ak dan ak seex aadama ak Mamour seex kaak ñoom ñëpp xaadim buub mii ñuy bokk di daje fii réunion ba dënd yi tàng sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dañoo mas ñëw dafa am ku mas a ñëw ni ko ñee ca mbaar ma boo ci waxut dinañ songoo xeex ndax coow la bari na mu daan ne ki ko doon wax nii daan ni ko nii mu ne ko dañuy songoo xeex laa la wax de mu ne ko kon léegi mu jag loolu day feeñ ci suñuy waxtaan ndax dëgg rek ko koy lal kon sëñ xaadim seen yaag ñi nga àndaloon maa ngi jaarale sama cant ci yow gannaaw bi ma la sante nga santal ma leen ñoom ñëpp gërëmal ma leen ñaanalal ma leen ndax euh, ku ci ne waxuma la la muy jëf waaye lam xalaat sax su ma ko xoolee xam ko ñoom ñëpp yéene lañ ci doxi pas-pas pëstéef ku ci ne amatoo woon guddeeg bëccëg lii jag rekk nga bëggoon dëgg la nag ak njëlbeen day saw ndax ñi ngi ko fi doog a def ba may xaadim géey ba tey maa ngi doog a def dara fii ci Ndakaaru man nag wootewuma di wut xaalis wootewu ma di dóor lijjantiwu ma ab xaalis ci kenn sëñ Tuubaa xëyalul kenn gonte ma na leer ñëpp waaw sëñ bi xëyalul kenn gonte ma laa wax teyit lii may wax kum neex jëlal kayit nga bind ko kenn duma gis fu ñu taxawaaloo ci xaside yi duma dem ci benn bureau di ñaani xaalis duma gis kenn kuy ñëw ma jàpp ni yelloo nga xaside yi ma la ko yëkkatil ngir bëgg nga jox ma dara jombale naa ko sama bopp askan wa ma bokk daa seen deret jii daa am lu mooy bañ su ma ko nammee def jël cox siim ko def ci xorom lekk ko parce que sëñ Modou Moustapha ko jàpp ci man nag nii danaa la seen géeju ma di la wayaanee dara tarde nga boo may jox xaalis sax di ma wan ni bëgg naa nga gis ma sax dootuma la xool parce que taxuma man taxuma kenn di ma defal dara taxuma man man defaluma sëñ Touba lu tax nit di ma topp ak nangam bërki démb sëñ Fall wax na ko turandoo yi ñu ma tuddee bërki démb laa am juróom benn fukki turandoo ñaar ñaara ci sama mbokk ñaar kenn ki sëtub sama yaay mee la kenn ki ma nga nee xaadimu ndaw ma nga nee ñoon ñoo ci samay mbokki deret ñi ci des ñëpp mbokkuk sëñ Tuubaa gi la aman ah, bu ma dee nit dem ba romb juróom fukki at man du ma taxaw sant sëñ Tuubaa lu may dabooti ci nit lu ma amatul boon ba ba lakk juróom fukki at danaa ko amati hmm? sama carrière jàng kenn def na ci lu tax ma séen la di la yëkkatil xasida ngir bëgg loo ma jox ma def sans poche su ma demee tëdd bu ma xaalis bi du rees loolu mooy dëgg fi man te li may wax nii noté leen ko waxuma nii di kañu walla dara barke sëñ Touba te wax naa leen fii ni xasida yi dégg naa ci boo ko bàyyiwut danga torox ah damay leeral ba mu leer dafa war a leer ah sëñ bii may wax ci la bokk ñi ma tuddee doom ci la bokk tudd maam moor bi ni tuddee na ma ñaari doom mhm. waaw waaw dëgg la de wax nga ma ko ay yoon sëñ Basiiru mii sëtub sëñ Ceerno Juuf màggalu poroxaan gi may tuddee doom ji maa ngi mooma ànd sama oto màggali bisu poroxaan soxnaam jàpp mu ñëw fekk ma fi ma toog ni ma soxna si sonn na lool dagaanal soxna jaara mu mu mucc te te te te te am jàmm ma ne ko léegi ne suuti mu ñëw akub jëlam ne ma soxna si am na ay seex góor ak jigéen kenn ki tuddee naa la ko kenn ki tuddeel naa la ko soxna jaara tuddeel naa la ko soxna jaara ñaar ñëpp maa moom xam nga li wax de waaye dañ maa tuddee doom ji ci bis bi mu juddoo tuddeel naa kenn ki kenn ki tuddeel naa la ko soxna jaar soxna jaara te tudduma dew ma ca sax de dew ma kon wax ju ne day nuñ ko wax day tingoom seere sëñ bas mii rek bu ma ci yemoon doy na sëkk hmm? kon man sant rek laa war a def sëñ Ablaay di la ko seereel yow mii sama kilifa gis nga yow duma la romb jëm fenn loo war a doon ci man rek doon nga ko fu ma mës ne fekk nga ma fa lu ma mës a dugg ànd nga ko man ba mu jeex te sa xol bii moo kaale gee yem bari na jànkat bu ko ñàkk teg fam ko ñàkk teg te bëggam lu baax rek ko waral kon bokkuma ci jàngkat yi yi yiy jàng tey wax ni amuñu kilifa ngóor si day wax ni toujours sama kër maam samay nijaay ay jàngkat lañ waaye man yow laa bëgg loolu responsabilité la waaye sëñ bi itam na ngeen seere ni moom rek laa bëgg kon sant naa ñëpp gërëm ñëpp ñaanal ñëpp sëñ Modou Guèye Ndioro jërëjëf sant naa la bu baax sëñ am setu jërë ngeen jëf sama ngóor si njàng mi ci njàng mu naqari mi euh, ngi jëf xel day fattu xel day fatto xel day fattu xel day fattu jéggal leen ma de amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf amin xel day fattu baal leen ma tuuti mag bi wax naa ko fu ne wax naa ko rajo fajiri ku fi lappi lappi fii la jaaroon kenn du yow yàlla sa jàmm yàgg mutu na xel day fattu ma ni waaw sëñ xaadim waaw sëñ xaadim Guèye moom laa yóbbante nuyoo sëñ Maysa sax waaw maa ngi koy saar bu baax a baax moo ngi mu àndal ñëpp baal ma xam nga jataay bii mënuñu koo sëñ bi bàlleen ma déglu jataay bii mënuñu koo woote te daara ji tax ma wax ba bàyyi te tudduma daara ji daara ji lu ma yàggoon a am yéene la ak pas-pasam ngir def ko wax naa ko léegi ci la lii déparé rek mooy taxawe daara ji euh, am yéene yi mottali ci yéene sunu kilifa yu baax ya nga xam ni ñooñu sos ci diine ak lislaam ak niñ ko waxee léegi mboolem turandoo yépp ñu tàbbal leen ci biir ak ku bëgg a jàng nag ñu tàbbal la ci biir euh, ñuy ñuy ja sàkku xam-xam coow li dafa bari ba xaw ma li may wax wax ñu leen coow li maa ngi sant itam kuréel bii nga xam ne ñoo baaxoo ànd ak man ci njiitul sëñ mam Guèye maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla ñoom ñëpp di sant sëñ Mody Fall démb ba tey mi ngi fi moo fi monté làmp yi ànd ak sëñ Daam Ñang mi nga xam ni moom itam ci bokk na ci jëwriñ yi ànd ak man ak mboolem lii ñu fi def lépp mu taaral jataay bi sëriñ Basiiru Mbàkke moom sëñ Cheikh Gaynde moo fi jiitu yàgg na fi loolu Touba la jóge waxoon naa ko sëñ Xaadim Seen ngir ñu présenté ko mbooloo mi ak sëñ Modou Bousso mii nga xam ni sama xarita moom it dëkk fii ci Wakaam moom it di kilifa gu mag ak mboolem kilifa yi nga xam ne yëpp ñëw nañ fi ñoom sëñ Ahmadou Sougou ñoom ñëpp maa ngi leen di siyaare bu baax a baax sëñ Mohamed sàmb soldaar yónnee na fi léegi seex maam seex baabu mu ñëwal ko fi ak yeneen kilifa yépp di sant mboolem jànkat yi nga xam ne ñoo dëkk ci dëkk bi yépp te féete fii maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñépp ku ci ne sa taxawaay gis naa ko ak ni nga taxawee ci bis bi jërë geen jëf jërëjëf sëñ Xaadim